أشهد أن لا إله إلا الله اللهم على زين وتعالى وسعة القرآن محمد عليه الصلاة والسلام
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمه وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فسل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أشهد أن محمد رسول الله هي القائدة الصانية التي يجب أن يؤمن بها قلب كل مسلم وينطق بها لسان قا لسانه قائلاً أشهد أن محمدا رسول الله ومعناها أتحقق وأزعن بقلبي وأعترف بلساني بأن سيدنا محمدا صلوات الله وسلامه عليه رسول مبعوث من عند الله تعالى استفاه ليبلغ للثقلين رسالته ويخرجهم من الظلمات الجهل والضلال إلى النور العلم والهدى والرشاد وأنزل عليه كتابا قيما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ألا وهو القرآن الكريم ليدعو الناس إلى الإيمان بما جاء به والعمل بما فيه من الحق والهدى والعلم الصحيح المنجي في الآخرة وفي الشهادة برسالته والإيمان بما جاء به تقويم للنفوس وتهذيب وهداية لها على التعاقب الدهور واختلاف الأزمة والعصور mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla di ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk julit yi waxtu wu nekk jamono bu nekk rawatina bu julli jotee danañ dégg kii nodd su waxee ashhadu an laa ilaha illa allah ba pare mu ngi kii teg ashhadu anna muhammadan rasulullah loolu dafa am lu muy tekki mooy l'islam ñaari élan yooyu lay demee mooy picc moo xam ne ñaari laaf lay naawee tey ku la laaj ndax picc dina naawe benn laaf looy tontu mooy déedéet ku la laaj ndax avion dina naawe benn laaf looy tontu déedéet loolu mooy laa ilaha illa allah muhammadan rasulullah loolu mooy ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah looloo tax mu nekk ñaareelu ponk ñaareelu keno boo xam ne war na sax ci xolub jullit xol bu nekk su fekkente ne boroom xol ba gëm na yàlla muhammad war na faa sax sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye du yem rek ci wax ne man gëm naa yonent bi seede naa ne moom yàllaa ko yónni du ko wax rek ci làmmiñam waaye day dëggal lépp lu ko yonent yàlla muhammad indil foofu la jullit ñi rawantee ñu bari ci ñun dana ñu wax ne yee man de bëgg naa muhammad waaye bu jëf li jotee rek nga gis waa ji ni mu soranteeg muhammad loolu donc mooy sunu jafe-jafe ndax boroom xam-xam yi bi ñuy wax ngëm dañu ne dafa sax ci xol làmmiñ bi wax ko cër yi jëfe ko waa ngëm goo xam ne walla bëgg goo xam ne ki koy wax ci làmmiñam dong la ko yemale est-ce que loolu lu dëggu la kon qaayida bu mujj boobu ñaareelu qaayida boobu mooy ponk boobu di seede ne muhammad yàllaa ko yónni lan la war a tekki ci dund jullit mooy mu dëggal ataxaqaq mu toroxlu ci xolam mu reconnaître wax ci làmmiñam ne muhammad alayhi salaatu wassalaam ku ñu yónni la mu bàyyeekoo ci allahu subhanahu wa taala yàllaa ko tànn ci biir jaam ñi mu juddoo ni nit ñi juddoo mu dund ni nit ñi dunde waaye mu faatu ni nit ñi faatoo waaye moo gën ci nit ñi léeg-léeg nga dégg sax koo xam ne diine ji dafa des a leer ci boppam jàngam xaw naa des gëstoom xaw naa des mu tagg kilifaam ba rombale ko aadama ne aadama diw sax bokkul ci aadama mii wala diw du nit wala diw nangam waaye xoolal muhammad pour yàlla won ñu mooy kan moom dafa am ndey ak baay dafa juddu ni ñuy juddoo dañ koo ëmb ginnaaw ba woy bu mu amee woy jur bu góor am woy jur bu jigéen dañ koo ëmb yàlla daf ñu bëgg a indil koo xam ne kenn du ne kii kenn mënu ko toppandoo waaye loolu mënul nekk déedéet koo xam ne mën nañ koo roy yàlla di ko préparé fan ci ñaari way jur ñu ëmb ko yàlla mënoon na wane kéemtaanam comme ni mu ko wanee ci Isa pour mu wan ñu ne Muhammad fi gën mu tëmbal ko ci kaw asamaan mu wàcc ci suuf ku ci mun dara kan mooy wax ne loolu mënul nekk yàlla def na ko ci Isa am na way jur bu jigéen amul way jur bu góor yàlla wan nañu lu gën a doy waar loolu aadamaa ngi nii amul ndey amul baay te nee na cëpp ci kaw suuf dox fi waaye muhammad alayhi salaatu wassalaam yàlla dafa bëgg mu nekk modèle koo xam ne dañ koy teg sunu lépp di ko toppandoowee moo tax mu nañu laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana dëgg-dëgg su ngeen bëggee toppandoo rek muhammad a ngi nii mu am way jur bu góor ak bu jigéen ñu ëmb ko comme ni jigéen di ëmb comme ni jigéen di sonne ba mat jot rawlekat yi wër ko keroog bu muy judd rawlekat yi dañoo wër soxna si mu juddu ni nit ñi juddoo ñu waxi ko maamam comme way juram bu góor dafa faatu mu ñëw ginnaaw bañ ko defaree ba laxas ko ñu jox ko ko mu génn ak moom kër gi taaw ko muy liir ni imaam di taawoo liir di ko tudd wër ak moom kaaba gi juróom-ñaari jéego juróom-ñaari yoon wër ak moom kaaba gi juróom-ñaari tuur daan ne sammaytuhu muhammada tuddee naa ko muhammad ñu ne ko lu tax nga jox ko tur boobu mu ne li yakuna mahmudan bayna alsamai wal ard ngir mu nekk ku ñu gërëm diggante asamaan ak suuf mu tàmbali di dund metti bi fekkewul baayam bi muy dund yaayam faatu waaye balaa yaayam di faatu sax yaayam nàmpalu ko ca àll ba lañ ko nàmpalee ca bani saad ay ay at yaayam faatu maamam bi ko yoroon daa di faatu mu dese abdul mutalib abu talib kooku faatu yonent bi dund mettit ay coono jafe-jafe pour lan pour yàlla won ñu ne nit la benn ñaar daa dund ni ngeen di dunde ni ngeen juddoo la juddoo ni ngeen di amee ay métit la amee métit di feebar dem di liggéey daan dooleem dégg ngeen ñu ne commerce na dem na ba saam sàmm na yor yat dugg ci àll bi pour yàlla won ñu ne kii ni ma ni ngeen di yëgee ay mettit noonu la ko yëgee noonu la ko dundee yamul ci loolu ni nit ñi di amee bànneex muy amee noonu bànneex ni nit ñi di amee naqar muy amee noonu naqar ñaata doomam ñoo faatu bal sax kenn ki mujjee faatu bisu tabaski la ci liir yi mu waaj di julli ji Ibrahima daal di faatu mu gàddu ko di ko yóbbu ci armeel yi ñëw ñu gas pax bi ba mu xóot di ko ci dugal ñu seen ay rongoñam di tuuru sahaaba yi ne ko ah da ngay jooy yow de yaa ñu ko tere woon mu ne leen déedéet li ma leen tere mooy am lu mel nii di yuuxu waaye bët yi day génne rongoñ xol bi di ko naqarlu waaye làmmiñ bi du wax lu dul lu neex yàlla ñu daal di roof xale boobu mu daal di delluwaat këram yàlla wàcce ci moom inna aataynaaka alkawsar kon yonent boobu wulida kama wulida al basar dafa judd ni nit di juddoo wa aasa kama aasa al basar mu dund ni nit ñiy dunde daawul dem fenn di naaw wala muy dugg ci suuf si di nuur wala déedéet moom dafa dund ni nit ñi di dunde simple yëkkatiwul boppam ba kaw asamaan pourtant mënoon na ko parce que yàlla yëkkati na ko yàlla moo ne ko wa rafa'na laka dhikraka yàlla jël turam lënk la ci turu muhammad waaye noonu di ko yàlla yëkkate yëpp noonu la yonent yàlla muhammad suufee sallallahu alayhi wa sallam ay nit ñëw nañ ci moom sax ne ko sayiduna wabnu sayiduna mu ne as sayid huwa allah sang bi doomu sang bi mu ne sang bi kenn la mooy allah ñeneen ñi ñëw nañ sax di ko bëgg a jay mu ne leen laa tatruuni kama atarati nasara ibnu maryam bu leen ma jay comme nasaraani ni ñuy jayee isa ne ko doomu yàlla man bu ma kenn jay muhammad kon dafa dund ni nit ñi dunde waaye wa maata kama maata al bashar dafa faatu ni nit ñi di faatoo dafa feebar sonn ba mënta dem ci jàkka ji mu ne abubakar na jiite nit ñi bis bu muy faatu yëguñu lu dul moom mënta toog fi mu tëdd ndax liggéey bu rëy bu ko yàlla gàll ci loosam yëguñu lu dul abubakar fi mu taxawoon di jiite jaami yàlla yi mu séen mu dégg bir wi ci ginnaawam mu tekk tekkaaral ndeke yonent bi lañ jàpp ali jàpp ndey mbagg ndey joor uqayli jàpp mbagg càmmoñ ñuy indi yonent bi saa salaam munta dox tànk yi di direeku sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw ba toll ak Aboubacar Aboubacar bëgg a deltu ginnaaw mu joxoñ ko baaraam an atimmu salaam mottalil julli gi waaye lan moo taxoon yonent bi nekk ci sukuraat mënta tëdd responsabilité liggéey l'islam keroog bu ñu jullee ba ñu sëlmal mu jàkkaarloog ñoom Abdullah ibnu Abbas mooy nettali nee na musu ñoo gis kanam gu leere nii keroog baraw jant te mu ngi ci feebar waaye mu xool ñu ñépp a ngi tekkaaral mu xool ñu ñépp a ngi sëngëmtal mu xool ñu ñépp a ngi am naqar ñépp a ngi triste waaye moom mu daal di muuñ lu tax parce que xam na ne liggéey bi am na ñu mu ko bàyyeel am na ñu koy wattu ginnaawam kon loolu moom mooy bëgg yonent bi alayhi salaatu wassalaam ixwatal iman yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu yëpp nag ñu wax juddoo ni nit ñi juddoo dunde ni nit ñi dunde faatu ni nit ñi faato waaye nag moo gën ñëpp nag xayrul bashar amul benn mbindeef bu ko buñ koy tollaleel nag képp koo xam ne ci ñun da ngaa dendale yonent ak kenn yow na nga yëg ne ab yéeféer nga doo jullit moo mën ñëpp moo raw ñëpp bal yawmal qiyaam bu ñëpp dee ba dekki moom mooy njëkk a dekki bal mooy njëkk a dugg aljanna mooy ñëw fëgg buntu aljanna gardien bi ne ko kokkan la ridwaan mu ne ko muhammad mu ne ko yow lañ ma wax balaa may ubbil kenn naa la ubbil ba pare sallallahu alayhi wa sallam ixwaani yàlla yónni na ko moom yonantu boobu ginnaaw ba mu ko tànnee li yuballiga li saqalayni risalata ngir mu jottalil ñaar ñu dëgër bopp ñooñu mooy al ins wal jinn nit ak ginne mu jottali leen li yàlla namm ci ñoom ci kaw suuf lu tax ñu ñëw fi lu tax yàlla yónni ko li yuxrijahum min azulumati al jahli wa dalal ngir yàlla yónni na ko ngir mu génne doomu aadama yi ci rëndamu réer ak rën la mu cànkute waaw yàlla bu yónnee yonent sallallahu alayhi wa sallam ngir mu génn ñi ci lëndëm ba léegi ñu des ci ngir mu génn ñi ci réer ba léegi ñu res ci ngir mu génn ñi ci cànkute ba léegi ñu des ci est-ce que kon dégg nañ li yàlla yónni Muhammad est-ce que dégg nañ ko yàlla bi mu ko yónni lan la ko waxoon pour nga génne nit ñi ci lëndëm génne leen ci réer génne leen ci cànkute tey ba léegi nii doomu aadama yi waxuma la loolu waaye jullit yi des ci mbokk yi suñ ci génnee ci lan la ñu jëme mu ne ila nuuril ilmi wal huda war rashad ngir mu yóbbu ñu ci ñett yóbbu ñu ci xam-xam ci ñu jublu ci téere yàlla bi muy alquran mu yóbbu ñu ci njub ci sunnaam yonent alayhi salaatu wasalaam mu yónni ci ci rashad ci lépp loo xam ne day baaxal sunu àdduna baaxal sunu àllaaxira waaye ba léegi rek ñoo ngi lànk génn ci ñett yee dugg ci ñett yi ñett yi du mën a jag lu dul dañoo sànni ñett yële jëm ci xam-xam jëm ci njub jëm ci orientation bu ñu yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam orienté waaye loolu ci lan la ñuy teg sunu tànk ci lan lañ mën a sukkandiku ba teg sunu tànk jëm foofu yonent bi alayhi salaatu wasalaam jëme nañu mooy lan ñu sukkandiku ci alquran wa anzala alayhi kitaaban qayiman yàlla wàccee ci muhammad téere boo xam ne ku ko dub rek ku ci ko jàpp rek daal di jub sa yëpp daal di baax adduna ak alaxira yonti yàlla muhammad bi mu génnee adduna benn sahaaba dafa ñëw ci mbokkam yi ne leen kan mooy yonent bi kan mooy muhammad ñenn ñi ne Muhammad mooy doomu Abdallah mooy doomu Amina juddoo na Makk faatoo Medine mu ne ko yow xamoo Muhammad mu topp leen kenn par kenn ku mu laaj rek ñun li ñuy tontu tey ngay tontu mooy li ñuy way li ñuy jàngal waa jardin Abdallah mooy baayam Amina mooy yaayam Makk la juddoo Medina la faatoo cey moo fi gën daal di fettasu ku mu laaj rek nga wax loolu mu daal leen fi bàyyi ñoom ñëpp. jubal te yaay Aïcha mu ne ko Muhammad laa bëgg a xam mooy kan mu ne kaana xuluquhu alquran soo bëggee mu xam Muhammad mooy kan da ngay jàng alquran alquran ñaar la téere bi globalement ak ku doon dox mu ne Muhammad moo doon alquran bi doon dox soo jàngee alquran da nga xam kan mooy Muhammad lan moo tax nag jullit yi tey mënuñu xam Muhammad mooy alquran lañu réere moo tax duñ ko mus a xam lu tax parce que xamuñu alquran suñu xamoon alquran téeméeri saar yi ak fukk ak ñeent fatiha ba naas kon ci la ñuy doog a xam muhammad waaye ñun xamuñu ko waaye mbokk yi li doy waar tey mooy yahud yi sax lenn ci yahud yi wala lenn ci nasaraan yi xam nañ muhammad xoolal ki taxaw naan law buisa muhammadan al yowma la xalla muskilatul aalam yahud moo wax loolu nee na su muhammad dékki waatoon tey rek day réglé adduna bi problème problème adduna bi yëpp lay réglé keneen ki ne li ñu ragal tey mu am ci monde islamique mooy muhammad mu bees daal di fii ñëwaat ku mel ne muhammad daal di fii ñëwaat kon ñooñu xam nañ ko kon lan moo tax ñun jullit ñi xamuñu ko ba léegi mooy réere gi ñu réer alquran yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إخوة الإيمان وفي الشهادة برسالته والإيمان بما جاء به تقويم للنفوس وتهذيب وهداية لها على التآقب الدهور واختلاف الأزمة والعصور ixwaani fillah ci seede gu ñuy seede ne muhammad yàlla ko yónni du doy rek ñu taxaw yëkkati sunu baaraam daan ne ñu ngi seede ne yonenti yàlla muhammad yàlla ko yónni loolu dong doyul dafa am lu ko war a dëggal nag ginnaaw ba nga ko waxee mooy nga gëm lépp lu mu indi moom yonent alayhi salaatu wassalaam ndax gëm gi ngay gëm li mu indi ci ngay mën a baaxee kon tey lu tax ñu mel nii mooy dañuy wax ne rek gëm nañ yonent bi yàllaa ko yónni waaye li mu indi nag ñu ne nga nekk ñu ku ne ah wax dëgg yàlla nag tollooguma fu ma ko mën a jëfee ah waaw kon kay bul wax ne gëm nga ko su fekkoon ne gëm nañ Muhammad quatre-vingt-quinze pour cent musulman ci réew mii topp nañ Muhammad ndax réew mi dinañ fi naan sàngara ndax yi sigaret dina fi tas ndax góor dina fi takk tubéyam ci ginnaaw ci ginnaaw poojam ndax jigéen dina fi def bopp neen ndax jigéen dina fi yokk kawaram ndax ndax ndax ndax bu dul jeex fekkoon ne gëm nañ muhammad sallallahu alayhi wa sallam dëgg la bu fekkoon ne li yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wa salaam indi nangoon nañ koo dund ndax réew mi kon dina mel nii tey ndax réew mi dina mel nii daanaka chaque jour boo xëyee dégg rajo dégg lu fëq sa nopp ci mbon te ñi koy def yépp dañuy wuyoo ne ñoom ndeysaan ay jullit lañ gëm nañ muhammad te yàlla nañu seede bi ngay seede ne muhammad yàllaa ko yónni lan la la war a jural mooy taqwiim lin nufuus dafay jubal bakkan yi xool leen ñi gëmoon muhammad keroog ba yonent bi jàkkaarloo ak ñoom alquran wàcc yàlla ne leen yaa ayuha alladina amanu innama alxamru walmaysiru wal ansaabu wal azlaamu rijisun min amali shaytaan yàlla ne yéen ñi gëm yàlla maa ngi leen di yëgal ne bis ni ki tey yonent bi taxaw di wax sàngara araam na carte araam na yoote araam na sobe la mooy tandiku leen ko ndax yàlla yërëm leen waaye yéen lu tax du ngeen daytalu keroog gaa yi dañoo génne ndaa yi sàngara yi di ko këpp ci mbedd yi ba naaj bi mu tàngee képp ku mu xeeñoon da ngaa màndi loolu mooy gëm yonent bi fekk na benn waaye ci marché ba mu takk lam yonent bi daal di ñëw ba ci moom daal di koy nuyu mu fay ko yonent bi xam ne kii jullit la yonent bi jàpp ci lam bi ba mu dëgër mu xëcc ba loxo waa ji deretal mu sànni ci suuf mu ne ko walaw mitta wa haza fi yadika ma aflaxta abadan boo faatu woon kii nekk sa loxo doo texe mukk doo texe ndax góor du ko takk waa ji yonent bi dem nit ñi ne waa ji yonent bi dem na foral salam mu ne leen déedéet yonent bi du tekki sama loxo safara ma koy takkaat ah loolu mooy ngëm ngëm mooy yonent bi bu teree te ngay bàyyi bu waxee nga def waaye su waxee nga naan non c'est que xam nga rek moom fi mu tolloon la quoi mais xam nga rek bon xam nga jamono boobu quoi loolu du gëm ku gëm doo wax doo wax olof yi nee nañ ku bëgg a akara da ngay ñeme kaani ku gëm du wax allahu akbar loolu mooy gëm gëm mooy ki nga gëm su la waxee defal da ngay wax da ngay def su la nee bàyyil nga bàyyi xool leen saxaaba yi keroog ba ñu gëmee yonent bi yonent bi di jullee ndoog ñoom julli tisbaar mu julli ñaari ràkk mu ngi jublu masjidul aqsa mu toll ci ñetteelu ràkk jibril ñëw ne ko tourneel jublil masjidul haram mu daal di tourné saxaaba yëpp tourné mu sëlmal pare ne leen waaw lu tax ngeen tourné gaa yi ne ko yaa tourné ñu tourné loolu mooy ngëm ngëm mooy ki nga gëm su waxee da ngay def bu teree da ngay bàyyi yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp yal nañu yàlla woon neen ba ñu xam ne lii mooy neen mu wërsëgal ñu sori ko allahumma arina alxaqa xaqan warzuqna ala tibaayi wa arina albaatila baatilan warzuqna ala jtinaabi allahumma ya musabitu alqulub ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله